ñëwaat nañ tey jii ci guddi ajjuma fukki fan ak juróom-benn ci weeru maamu koor daje bi ñuy tàmm am ak fii ci masjidu nuur di ci nafar téere nitu yàlla ku màgg ku ñu tuddee docteur Saïd Hawa téereem bi mu tuddee jundullahi thaqafatan wa axlaqan soldaaru yàlla bi li war a xam waaye soldaar yàlla bi ni war a mel ñu doon nafar ñaareelu pàcc téere bi te mooy soldaar yàlla ni war a mel ndax wàll woowu dafa wàll wu ñu xaw a sàggane jullit yu bari sóoraale ko te moo ëpp solo ci nekk jullit mooy ni nga mel ni nga mel moo ëpp solo ci nekk jullit ndax danga war a mel ni jullit di mel yonent bi ne yàlla da ko yónni ngir mu mottali jikko yu rafet yi c'est-à-dire mu won nit nan la war a mel kon mu nekk pàcc bu ama am solo boo xam ne jar na nafar jamono yi yëpp nag ci lañ nekkoon di ko nafar ndax bi ñu bëggee xam soldaar yàlla bi ni mu war a mel dañoo dellu ci alquran ñu gis ne borom bi tabaraka wa diggante aaya yu nekk sóortu maayida ak aaya bu nekk sóortu mujaadala ci la waxe ni soldaar yàlla war a mel mu ne soldaar yàlla bi war naa am juróomi jikko jikko yooyu bi ci njëkk mooy mu nangu péete mu nangoo féete ak yàlla ak yonent bi ak jullit yi ñaareel bi mooy mu fexe ba bëgg yàlla yàlla bëgg ko ñetteel bi mooy mu nooy ci jullit ñi ba pare dëgër ci ñi dul jullit ñeenteel bi mooy mu nangoo jihaat ci yoonu yàlla waaw mu nangoo jihaat ci yoonu yàlla euh, boobu mooy juróom juróomeel bi jamono yi yëpp ñu ngi tollu woon ci ñaareelu jikko bi te mooy fexe ba yàlla bëgg la nga bëgg ko li njëkk a def mooy fexe ba bañ a bokk ci ñu yàlla bañ bañ ca tolloo tuddoon nañ lu war a mat fukki jikko ak lu teg wax ne ku ko jikkoo yàlla bañ la ngir ñu moytu leen bañ ci jógee lañ ci jikko yi nga xam ne ko jikkoo yàlla bëgg la ndax yàlla moo ko wax ci alxuraan wala yonent wax ci sunna ba dugg nag ci ñetteelu jikko yi te mooy nooy ci jullit ñi dëgër ci ñi dul jullit boobu la ñuy ñëw incha allah pour jeexal ko tey te mooy ñu àggale li aju ci nooy ci jullit ñi mooy lan tudd nañ ci yu bare bare bare bare waaw nañ ci yu bare bare bare bari ba agsi woon ci من مظاهر الرحمة بالمؤمنين تخليصهم من الظالمين والكافرين إذا تسلطوا عليهم بشيء من ال... بشكل من الأشباه bokk na ci yërëm jullit ñi nga dox seen digganteeg ñi leen di tooñ ñi leen di sonal waaw nga dox seen diggante ak ñoom loolu bokk na ci li nga xam ne day wane na yërëm nga leen yonent bi ne almuslimuuna aduwullah yasaa bi zimmatihim adnaahum wa hum yadun ala man siwaahum ne yonent bi nee na jullit yi ñoo yam daraja kenn ku nekk ci ñoom mën naa wuutu ñi ci des kon nag fu fi ab jullit tumuranke ay jullit ñoo war a jóg dem xettali ko ay jullit ñoo war a dem xettali ko Euh, bokk na ci liy waree ne yërëm nga julli ñi mooy nga leen di rendre service nga jàppale leen ci seeni soxla loolu nag ñépp ñoo ci bokk moo xam ay mag lañ moo xam ay xale lañ moo xam jigéen lañ moo xam góor lañ moo xam ñu tële lañ ay màggat ak ñoom ñépp lislaam lim la sant moo ci koo ci tane nga dimbale ko koo ci gis nga assisté ko waaw astma waaw loolu lu am am solo la yonent bi salaa salaam da daan service da daan servir saaba yi ak képp ku mu dendal soo bañut mu liggéeyal la saaba yi ridwanullahi taala alayhim ñoom itam dañ daan liggéeyante di jàppalante loo yëkkati ñu jàpp ci waaw loolu amuñ ci woon benn kersa amuñu woon ci ak rëy doomu aadama day woyof rëy baaxul di def foo toll defe ne nit ñi ñoo war a nekk ci sa service waaye yow waruloo nekk ci service kenn loolu erreur la bu rëy rëy la yàlla bu ko yàlla nattoo kenn am na ñu ko yàlla nattoo seen position ci sëste bi daa dem bañ jàpp ne ñoom ñépp a war a liggéeyal waaye ñoom waruñoo liggéeyal kenn loolu nag njuumte ndax bu fekkoon luy mayee daraja la kon yent bi def ko yent bi lu mu a santaane ku koy def mu jàppale la ci loolu moo tax keroog ci xeetu xàndaq ba ñuy ci mooy eh, xeex bi ñuy tuddee al dama coalisé woon noonu coalisé woon ñëw attaque yonent bi biir Médine mu diisoo ci saaba yi ñu ne ko da gas ngaadeew arab amuñu culture boobu amuñu culture gas ngaadeew Bilal proposé ko ko wala boog benn saxaaba am na ñu wax ne Salman al Farisi la ne ko nañ toog ci biir dëkk bi te gas am xunti mu dëkk bi buñ ñëwee balañ koo jéggi ñun dañ dal seen kaw ba ñuy gas xunti ba moom ci ñu doon gas la bokk sa santaane liggéey toog di seetaan keroog bi mu ñëwee Médine ñuy tabax jàkk ji ci ñi doon liggéey la bokk kon loolu bokk na ci yërëm jullit yi nga jàppee sa bopp kenn ci ñoom lu ñuy def ma dugal ci sa loxo waaye na gong rek ca kaw doo fas xànc moroom loo bëgg def ne dañ ko war a liggéeyal loolu bu la jigee fii itam du la jig fële moo tax yonent bi salaa daana jàppale néew ji doole yi daana joxe ñam miskin yi daana la daana raay bopp jirim yi ngir ñi yëg ne wéetuñu am na ku leen yërëm ndax jirim dafay gaaw a ñaxtu ndax su fekkee Euh, sa way jur daa faatu euh, da ngay defee ne ku amatul kenn koo méritoo yërmandeem loolu moo tax bokk na ci jaamu yàlla yi lislaam santaane boo dajeek jirim nga won ko yàqu jur te mooy nga def ni nga def ak moom ni ngay def ak sa doom am na nettali bu ñu nettali am na benn woykat bu ko woy euh, am na soxna si nekk fii Sénégal ku ko baamu euh, man de jàpp naa ne loolu mën na koo jural njëgal borom bi ëllëg ndax moom ku siiwoon na ci wàllu woy ci dëkk bi jamono yi yëpp ne woyut ndax dañ ne dafa mel dañ ne kàddu ki moo dem waaye ku ku ku yi daan déglu yàlla dogal na nag ci biir woy mas naa woy woy woowu woy nag gannaaw gi laa gis ki mu ko jëlee ton beeg laxdi beeg yëpp ci kooku benn jigéen defe naa libanaise la moo ko moo ko woy mooy korité bi wala tabaski jublu si yant bi di génn di dem ci jàkk ya daje xale yi mu gis xale yi di fo mu gis benn xale bu beru foowu la kenn mu ñëw fekk ko muy jooy yant bi ne ko looy jooy mu ne ko man sam yonent bi da ko yabaloon guerre mu dem faatu fa bi mu faatoo sama yaay sëy keneen kooka ñëw lekk sama alalu papa ji bàyyi ma ma des nekk jirim tabaski gaa yi nii di dégg man xale yi fooy yëpp dañoo dañ leen a jox liñ jënd yére bañ jënd ko ba denc ko man duma am lu ma sol ndax sama papa faatu yonent bi ne ko xanaa bëggloo ma nekk sa baay xanaa bëggloo Fatima maa ngi maa ngi jégalu yonent bi limal ko ñi ma am yépp ñi ko ci mag mu ne ko ñooñu nekk sa mag imaam ali nekk sa nijaay xale bi ne ko ankay musuma gént am baat mu ne bàyyi bu mel ni yonent yàlla muhammad yonent bi jël ko yóbbu ko jëndal ko yére defal ko lépp lu xale soxla xale bi dellusi bég lool xale yi di ko laaj lu tax mu bég ndax yow léegi nii rek yaa ngi bariwoon di jooy mu nettali leen li ko dal ma ne loolu sénégalaise bi ko wayaat yaakaar naa yàlla jaare ci jéggal ko la mu njëkkoon di woy te jaaru yoon kon yërëm jullit yi rawatina ñi néew doole ci ñoom loolu lu baax la bokk na ci liy wane na yërëm nga jullit yi mooy nga muñal leen xajoo leen lil asaf c'est triste mooy jullit yi léegi ñu bari ci ñoom ñi dul jullit lañ gën a xajoo jullit yi bët bu set ku dul jullit def lu war a tax ñu mere ko ñu jéggal ko jullit du def lu jegeloo sax ñu mere ko bañ ko mu mel ni ñun ñooy suñu nooni bopp loolu moom lu bees la yonent bi jullit yi mu yaroon melu meluñ noonu dañoo xajoon te woon ñun boo fi mu ne nii yàlla bu yàlla def ñu bokk ci aay bi nekk ci sóoratu xasr yàlla di wax basuhum baynahum shadid taxsabuhum jamian wa qulubuhum shatta yàlla yàlla buñ ci bokk yant bi nee na ñun ñoo gën a yàqonte ñun ñoo gën a suñ diggante yi ñoo gën a ñagas suñ digganteeg ñi dul jullit boo ñu séenee nii ñuy dox dangay def ne ay benn la ay mbokk lañ ñu bëggante lañ waaye bëggante wuñu càmm wuñu xoloo yi nga fiy dégg yëpp yi ci ëpp ci biiru jullit yi la loolu nag moom cat la cat dégg naa ñu ne Seydi Hadji Malick daana ko wax dama ko dégg rek ñu koy nett ñu ne daana war wolof yi dañoo am problème wala boog nit ñu ñuul ñi dañoo am problème ndax ñoom kenn bëggu leen ba pare ñoom bëggantewuñu dégg naa ñu ne seen agement yi ko wax waaye man bu ma doon wax damay jullit yi ñoom ñoo am problème ndax ñoom la kenn bëggut ba pare ñoom bëggantewuñu waaw ah. su ko defee ñu nekk fi rek di xuloo ak a tuutalante léegi jullit boo bëgg xam ci moom lu tax bàyyi ko rek demal laaj ko jullit ni boo bëgg a xam ci moom luy tax nga bàyyi ko luy tax nga xeeb ko demal laaj ko ni jullit moom su ko xamee dana ko wax su ko xamul dana ko sos ba ba mu tuuti ci yow loolu musiba mbàbb kumba la loolu loolu jóge fi sax ko gën waaw jóge fi sax moo gën nekk fii ba pare te bëgguloo bëgguloo jullit ñi kon bokk na ci jikko yi tax a bokk ci soldaar yàlla yi nga yërëm jullit ñi loolu mooy ñetteelu jikko bi ñeenteel jikko bi mooy nga dëgër ci ñi dul jullit fii nag moom duma fi yàgg ndax situation bi bi tax ñu mën a appliquer texte yi ma yor situation boobu jullit yi dunduñ ko tey donc nettali ko du am solo solo trop ndax ñaari situation ñoo fi nekk benn ñu nekk ak ñoom ci ci ay ñu séq ak ñi dul jullit ay loolu amatu ñun amatu séqu ñoo ñi dul jullit ay kon texte yi nga xam ne ñoo ñëw ci alxuraan sunna di wax ban comportement lañ war a am ci heure boobu jarutul jarul jarul waxtaane ndax ne séqu ñoo ñoom ay xeex doxul suñu diggante xëccoo doxul suñu diggante wala boog ñu nekk ci état islamique boo xam ne ñoom minorité lañ fa loolu itam amut su boobaa itam lislaam wax na comportement bi jullit war a am ci ki nga xam ne dangaa dëkk ak moom islaam di àtte te moom bokk leen diine comportement yooyu daanaka euh, jarul soy ndax euh, dunduñ ko léegi nag am na situation boo xam ne xaw naa jege bi ñu bi ñu dund lii léegi te mooy dëkk ak ñoo bokkulul diine te amuloo ci ñoom benn autorité ñoom amuñ ci yow benn autorité waaye séqu leen ay ngeen war a séq jàmm loolu charia wax na ci ne ñi nga xam ne da ngeen a dëkk ak ñoom ak nu mën a deme te xeexuñu leen bund xatal bund xataluñ leen man ngeen di seq ak ñoom jàmm ba àgg ci di leen teral di fekke seen xew yi waaw ba mu des seen xewu diine yi xewu diine wax naa ko ci xutba bi passé jullit amul droit feete feetu diine ñu dul jullit feetu aada yi mën nga ko fet seen ngénte yi seen céet yi seen dëj yi ba mu des lépp luñ fay def ndax liñ nekk liñ nekk ay nit lépp lu ñuy def ndax liñ nekk ay nit mën nga koo fekk lépp lu ñu nekk lu ñuy def ngir li ñu nekk ci diine sàngam doo ko def doo ci bokk doo ci bokk doo ko fekk loolu mooy nattukaay bi donc mën nañoo dëkk ak ñoom ci jàmm ndax état islamique amul donc bu état islamique amoon dañ leen di garantir la seen sécurité ñu fay ñu impôt mooy jizya loolu la lislaam seq ak ñi dul jullit ndax ñi dul jullit du ñu génnee azaka te azaka farata la ci ñi nekk jullit te ñoom dañ leen a gardel seen sécurité bu état bi nekkee bu lislaam ñoo leen gardel seen sécurité kenn du leen laal kenn du leen lor ñoo leen war a ci ay conditions yuy tax ñu mën a liggéey ba tedd ba lekk ba dund ñoo leen amal sax facilité yuy tax li ñuy jëfandikoo te charia araamal ko ñoom ñu mën koo am mas koo ko wax fii ci aéroport boobaag léegi mat ñaar fukki at ci émission euh, conférence yi moom fa doon def ci économie islamique ma wax ne njiitu réewu jullit yi dafa am devoiru chrétiens yi ak juifs yi dund ci état bi ñu ñu mën a am sàngara suñ ko bëggee mën a am mbaam ko buñ bëgg moo xam dañ koy yar wala dañ koy importer loolu état islamique bi moo yor moom la war nga xam ne kon bu fekkee jàmm rek a dox suñ diggante wax dëgg yàlla amuñu ak ñoom benn problème loolu mooy mooy règle général bi nga xam ne ay text ñoo ko ñoo ko wone ñoo ko digle waaye sénégalais yi moom de nature dañu dañu nitu jàmm lañ moo tax damay wax fii fii ci Sénégal gi diggante dialogue islamo-chrétien amu fi amu fi sens parce que fi mu am sens mooy fi am problème fii catholique yi ak jullit ñi amuñ problème amuñu benn problème moo tax ma saa ko wax fële ci aéroport ne foo fi déggee ku naan buñ appliqué lislaam fu ñu dul jullit jëm wala fu catholique jëm tiitalul catholique yi jullit yi la tiital waaw parce que catholique yi amul benn benn menace benn menace menacé wu leen ci lislaam ñu doxal ko Sénégal ndax ñoom lépp lu leen seen diina may na tagan na lislaam de leen di bàyyi ñu jëfandikoo problème bi kay mooy Modou yeeg Ibrahima yeeg Mouhamad yeeg Moustapha yi nekk ci baar yi te bu ñu appliqué l'islam ñu luqar ci leen ci baat yi baar yi làpp leen ñooñu ñoo ñoo tiit catholique yi tiitu moo tax foo fi déggee sénégalais bu naan bu bu ñu appliqué man ba ñu ma ñu appliqué l'islam waaye bu ñu appliqué l'islam foofu suñ mbokk catholique yi ba tiitalul catholique boppam la tiital parce que moom moo mel moo nekk jullit n'importe quoi ba pare te bu ñu xasee di nekk jul dañ koy nekk rek wala ñu bàyyi kon wax dëgg yàlla fii Sénégal gi amuñu problème boobu te loolu yàlla dogal na ci lislaam la nekk dëgg la sénégalais yi am nañu yaatu dënn gi waaye lislaam ci boobu moo mel noonu parce que amul fenn ci àdduna bi fu lislaam am problème ak beneen diine te fekk foofu moo fa nekk majorité fu mu ko amee rek daa nekk minorité ñu not ko waaye fu mu nekk majorité rek ña fa nekk minorité am jàmm waaw loolu mooy dëgg loolu wax ko wax ko wax wax dëgg yàlla kon wax dëgg yàlla euh, suñu diggante ak ñi dul julit ñun jullit amuñ ci benn problème benn problème lañ ci am bi daa fees dell ak ay nettali yonent bi jëflante ak ñoom ay jëflante yu yéeme yéeme yi nettali li ñu nett fii euh, yowoot boobu doon tapage yonent bi bu xëyee fajar lay bale këram ñëw tuur ko ci kanam buntu kër yonent bi bu yonent bi génnee gis ko woo waa kër gi ñëw bugg tuur ci mbalit bi mu laajee ba xam ne dëkk ndoom bee koy def mu bàyyi noonu bu tuuree rek mu buub ba ba benn bis mu am ay fan kenn tuuru fa dara mu laaj ne mais man euh, bali mi daan tuur fii léegi gisatuma ko ñu ne ko këru fi daan tuur kat dafa feebar mu ne ah, ah te kenn waxuma ko ñu ne ko ah feebar de yonent bi dem fëgg ñu ubbil ko mu laaj waa ji waa ji génn mu ne ko fan yi yëpp dama gisul mbalit euh, bi nga daan tuur ma laaj ñu ne da ngaa yi ma ñëw seet na nga def mbaa yaa ngi tane waa ji daal dugg ci diini ji waaw mu ne daal kii moom yàlla ko yónni ndax man caay-caay ma ko def mu man koo faj faju ko waaye xaar ba ma feebar mu ñëw di ma yéene jàmm kii yàlla ko yónni dugg ci diina ji donc amuñu problème ak ñi dul ci ñun kay suñu biir la ñu am te loolu nag mooy cat li loolu loolu il faut ñu waxtaane ko wax dëgg yàlla man man daal comprendre mu lu tax lu tax loolu lu tax mënuñoo mënuñoo nekk bàyyi ñun ñëpp ñu nekk ay jullit lu tax far force ñëpp mel ni man walla ñu génn ci diini ji te man ni ma mel li ci ëpp istihaad la rek istihaad la damaa gis ku ma diineem doy rek mu wax ma ko ma def ko léegi keneen gis ku ko diineem doy ku ko wax leneen mu def ko nga nga nga nga jàpp ni yow sa sëriñ mooy wax waxkatu dëgg moom sëriñam waxul dëgg nga taxaw temm ci génne ko ci diini ci loolu moom maa jàpp ni njuumte lu rëy rëy la te lu jara waxtaane la léegi nag malheureusement ñaari tendance yooyu ñoo am ci diini ji jullit yi ñaari group lañu loolu dañ ko war a waxtaane mu leer benn yoon dafa am ñoo xam ne ni ñu déggee lislaam ñoom jàpp nañ ni ñi ëpp ci ñiy woote jullit ay jullit lañ ñu néew ci ñoom ñoom ñoo dul jullit ñooñu ñoo yaatu dëgg ñooñu jubóog ñoom jafewul il faut nga ëppal door a génn waaye boo ëppalul danañ la am ñeneen ñoo xam ne dañoo jàpp ne ñi ëpp ci ñiy woote jullit du ñu jullit ñu tuuti ci ñoom ñooy jullit xam nga foofu te y'a problème foofu y'a problème ñaar yooyu ñaar ñooyu ñu seen dëggoo du yomb parce que problème de fondement moom moom lañu am problème base problème départ lañu am moo tax xadis boobu te mooy xadis boobu fee te boobu day addis bi jar na waxtaane de te mooy hadis bi yonti wax ne yahood yi nekkoon nañ juróom-ñaar fukki kuréel ak benn nasaraan yi ñëw nekk juróom-ñaar fukki kuréel ak ñaar mu ne xeet wii danañ nekk juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett kuréel yooyu yépp safara la dem ba mu des benn foofu la problème bi nekk xadis bi am na ñu wax ne wérul waaye am na ñu bari ci ñuy gëstu ci wàllu xadis ñu wax ne wér na mu des problème déggin bi man de gannaaw gi sax laa door a gis ay borom xam-xam yu mag yu wax li ma jàppoon waaye loolu naka jëkk loolu laa jàppoon ndax loolu laa mën a comprendre mooy baatu umma ummati yont bi da koo wax ci ñaari chance dafa dafa am fu muy wax umma jublu ci ummatu daawati am fu muy tudd umma jublu ci ummatu ijaabati ummatu daawa mooy gannaaw bi yont bi ñëwee ku fi dundati rek ci xeetu yonte yàlla Muhammad bi yonte yàlla Muhammad ñëwee ku dundati ci àdduna ba ci xeetu yonte yàlla Muhammad nga bokk gëm nga ko wala gëmuloo ko loolu mooy ummatu daawa ñi ko gëm nag ñooy ummatu ijaaba léeg léegi nag mu wax ak ummatu daawa léeg-léeg mu wax ak ummatu ijaaba léegi nag foofu lay problème bi nekk parce que dina wax ummati walla mu ne haadihi léegi kañ lay wax ummati muy tekki ñi gëm wala ñi tombeeg yàlla yónnentam li ko yàlla yónni man dama jàpp ne xadis bi ummatu daawa lay waxal c'est-à-dire li ma bëgg a wax mooy yonent bëgg a mooy yahuud yi nekkoon nañ juróom-ñaar fukki kuréel ak benn bi nasaraan yi ñëwee dolleeku ci ñëpp ñu ànd nekk juróom-ñaar fukki kuréel ak ñaar du nasaraan yi ñoo nekk juróom-ñaar fukki kuréel ak ñaar nasaraan yi ñoo dolleeku ci yawut yi yawut yi nekk woon juróom-ñaar fukkëréel ak benn ñoom ñëpp ñu ànd nekk juróom-ñaar fukkëréel ak ñaar bi jullit yi ñëwee dolleeku ci du jullit yi ñooy séddaliku juróom-ñaar fukkëréel ak ñett waaye dañuy fekk juróom-ñaar fukkëréel ak ñaar yi fi nekkoon dolleeku ci ñu nekk juróom-ñaar fukkëréel ak ñett kuréel yooyu yëpp nag safara ñëpp ba mu des benn bi mooy bi mu jëñëw mooy jullit yi man loolu laa déggaat man loolu laa dégg bi gannaaw gi nag laa gis ne ndeke ay borom xam-xam yu bari wax nañu ne loolu la loolu laa hadis bi teg hadis bi tekki tekkiwul ne jullit yi ñooy tekki ñooy nekk juróom-ñaari xaaj parce que borom xam yu bëri gëstu nañ ci même ñi gëm ne sax jullit lay waxal def nañ ci gëstu ça parce que ku bëggoon ne génne ci jullit yi juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett si jullit yi di nga am problème ku la ku la waxoon na wàññil ma juróom-ñaar fukk ku la ñett ci julli gi bala nga am fukk waxuma juróom-ñaar fukk de fukk di nga am problème wala boog nga yombal kuréel lool ba mu ba daayira su boobaa kuréel yi danañ ëpp téeméer donc li gën a jamtalu te man loolu laa gëm moo de ne yont bi ummatu daaw bi lay wax jullit yépp baax nañ ndax yonent bi dafa dafa wax beneen feneen kullu ummati yadxuluuna aljannata kullu ummati yonent bi dafa feneen ci addis wér di sama xeer bi yëpp àjjana la jëm illa man aba kon ñàkk a dem àjjana mooy exception ci jullit ñi c'est-à-dire ñii wuy ñii wuyoo jullit ñàkk cee dem àjjana exception la régal bi mooy ñiy wuyoo jullit ñëpp àjjana la ñëpp loolu rek moo mën a tekki kullu ummati yadxuluun jan illaa man aba kon jullit yi ñi ci ëpp ci ñi jullit ñi àjjana lañ jëm lu dul ñi nga xam ne seenug njullite dafa remettre en cause ponk nekk jullit misaal koo xam ne nekk jullitam da koo jural mu gëm beneen yonent bu ñëw gannaaw yonent yàlla Muhammad kooku moom moo génnee boppam parce que yonent bi moo ne yonent du ñëw gannaawam yàlla wax ko xaatimu nabiyin wa imaamil mursalin daa bokk ci bokki gëm yàlla nga gëm ne yonent nubuwoo ci yonent yàlla Muhammad la yem yàlla du yónni keneen loolu daa bokk ci ponki gëm ponki nekk jullit kon ku bëggee nekkee jullit ku bëggee nekkee jullit gëm beneen yonent bu ñëw gannaaw yont bi ak noo ko mën a théoriser jullit yi sañ na laa génne sañ laa laa bañ a compter ci jullit waaw yu mel noonu kaa yu mel noonu man man nañ ko man ak yeneen yeneen xeetu jullit yoo xam ne xëy na dañoo weddi loo xam ne ci diini ji daroor la ci mënu cee génn waaw léegi nag bu loolu yëpp jàllee mën nañoo nekk ay jullit yu manqué mën nañoo nekk ay jullit yu manqué ay jullit yu mooy yàlla waaye mooy yàlla yàqut ak njullit su ko borom yëgee te tuub ko waaw fu mu ko yëgee te tuub ko rek du def fu mu ko yëgee tuub ko lu mooy gi yàgg-yàgg lu mu bari bari du génn ci diini ci Euh, boo boo wattuwul sax xikma bi ma bi ma jàng ajjuma bi paase bi ko jiitu ibnu atayi laay da day da da dafay wax ne dafa wax ne euh, ànd ak boroom xam-xam bu rëy ànd ak ku xamul te woyof a ko gën ànd ak boroom xam-xam bu rëy ànd ak ku xamut tawee fa ko gën ndax boroom xam-xam bu rëy moom yàlla nañ ci musal ndax day dem ba jaxase waxam ak waxu yàlla fan yii am na kilifa diine bu mag su ma nee kilifa diine entre guillemets laa ko dama wax ci langage bi mais xam nga diina moom benn la benn diine moom mooy lislaam lislaam mooy dina eh, yonent yëpp ci lislaam la yàlla yónni teewul nit ñaa ngi wax diine yi diine yi jóge ci yàlla dama leen di fekk ci loolu pour expliquer li ma bëgg am benn kilifa ci kilifa diine yi fan yi joxe ndigal ci ne ngóor jigéen yi góor jigéen yi léegi nañ leen maye mën nañ leen maye ci seen jàkk yi donc diine jooju ku ca ku ca nekk ci imaam ci jàkk bu ay góor jigéen ñooyu na leen maye. ma maye leen ñaanal leen daal barkeel seen sëy waaye loolu garaaw na li li gën a garaaw ci li wax mooy seen téere yi ay nit a ko bind njuumte yi te loolu dañ ko daan wetti Ahmad Didat rahmatullahi alayhi gaañu na sud africain la boo xam ne dafa def ay débat yu bëri ak américains yi ak euh, catholique euh, euh, élimaanu chrétien yi surtout protestant yi am na débat bu mag bu defoon Amérique ci ak benn benn kilifa diine gu réeri ko ndax wan ko ne ko thème bi moo daan ndax injil waxu yàlla la alors débat bu muy jeex ña teewoon foofu ñëpp nangu nañ ne injil du waxu yàlla ñoom loolu dañ ko daan bañ dañ daan bañ ne du wax léegi nag pape bi nee na téere yi ñoom ñoo ko bind moo tax mën naa am jum waaye yëmul foofu daf ne yàlla mën naa jum yàlla day jum daf ne yàlla day jiw <laughs> loolu xam nga barki démb am na xale bu ko fi waxoon fii ko rey daa mujj daw sax ah léegi nag ñoom kii léegi kilifa gee ko wax kilifa gi ne yàlla dafa jiw kon eh, gis ngeen ne eh, njub mooy lépp moom solo eh, jullit ñi kenn gënu leen a leer luñ gëm ndax ñoom seen chance mooy li ñu li ñu gëm moo fi moo mujj ñëw te kenn jotu cee dugal loxoom ba ko ak leneen yent bi ci wam xër gum xewroon ci alxuraan yi kenn bañ cee dugal loxoom daawul nangu ñu bind alisam yi daaw ko nangu ngir bañ ñu jaawale ko ak alxu yàlla yi loolu moo tax dafa bi mu génnee àdduna alxuraan dong lañ bind kenn bindaatul leneen waaye nag dañ ko bind ci ay place yu wuute yu bëri ay xeer ak ay doj lu moom moo newoon a réer te mais nag dafa bëriwoon ko mokkal integralement mais ci xaweru bu rëddati ñooñu murtatoon si naa bakkat di xeex ak ñoom xeex ba dafa metti ay kaamil yu bëri ay kaang yu bëri faatu kaang mooy ma ku mokkal alxuraan loolu moo tax euh, Seydina Ousmane gaawanto dajale ko dajale euh, la fi nekkoon pour bañ mu am ci yu yàlla ne inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun mu ne man maa fi indi alxuraan dinaa ko garde effectivement alxuraan yàlla garde na ko waxuma jamono yooyu mais jamono yii léegi mokkal alxuraan ci àdduna bi te kenn ëppalewu ci senegale yi waaw ah, sénégalais itam bokk na ci xususiyaat yi leen yàlla defal mooy ni ñuy jëfandikoo alxuraan jàpp ma ne am na xeet wu ëpp ñuy mokkal alxuraan léegi sénégalais yi waaw ah, bu njëkk nag dañ ko daan mokkal eh, ni ñu ko mënee rek suñ làmmiñ du làmmiñu arab araf yu bëri mënuñ ko woon a prononcé moo tax dañ ko daan xam rek bind ko mais daaw buñ koy wax doo doo ko xàmmee waaw mu nekkoon lu méttee métti nga xam ne li muy wane ne kil coono bi mat ñi daj ci alxuraan nekk fi mooy mokkal téere bu toll ni alxuraan ba di ko bind te xàmmewoo siin ak Chine booy wax Chine walla ngay wax siin kenn du ko xamee mun loo booy priorisation benn nga nga loolu loolu yitt ju réy réy bon dégg naa sax ñu yoonaan eh, eh, siinul bilaali waaye man loolu damaa jàppale nañ koy wax nii rek waaye bilaal mënoon naa wax chine parce que bilaal ci arab yi la bokk dafa ñuuloon doom arab la doon wax donc damaa defe ne dañ koy wax noonu rek pour wane ne nit ki ñuul wax Chine yomb ko mais euh, mën nga wax ne juróom fukki at ci gannaaw daara yi nekk Sénégal daara yi ci xàmme woon Chine ak Siin bariwul ay benn benn daara rek ñoo ko doon ñoo ko ñoo ko xamal waaye léegi loolu Sénégalais yi réglé nañ ko réglé nañ mbiru euh, kii bi maxaarij bi réglé nañ mbiru tëj bii di sax réglé nañ ko xiraat yi sax réglé nañ ba pare rek di ko mokkaloon mais surtout waa Touba yi nga xam ne dañ koy booleeg di ko bind nga xam ne man jàpp naa ne yaakaaruma ne am na weneen xeet wuy dox loolu xëy na am na mais xaw ma beneen xeet woo xam ne dafa dafa sas boppam mokkal am bind ko Touba ku fa dem boo bokkee ci yenn famille far force nga mokkal alxuraan bind ko loolu la neex nga def ko ba après loolu la neex mën nga koo defee après même bu dee ay ay ay giraawal waaye. na nga mokkal alxuraan bind ko bind ko benn yoon ba ñaar yoon loolu dañ ko sasoon seen bopp ba tax na fi mu ne nii wax dëgg yàlla gox bi ëpp ñuy bind alxuraan eh, léegi sax ay xale yu tuut ñoo koy bind eh, loolu xéewal la bu kon eh, bindu tey bi mooy nooy ci jullit ñi waaye dëgër ci ñi dul jullit dëgër ci ñi dul jullit wax naa ne e, du neex a waxtaane jamono yi léegi tembe ndax relation yi yi teg si prévaroon relation yi presque amatul mooy ay jullit yuy jaamaarloo ak ñu dul jullit di xeex ak jom loolu amut ñun xeexuñoo kenn ñu dul jullit ñu ngi dëkk ak ñoom ci jàmm walla ay jullit yuy appliquer l'islam dëkk ak minorité bu du jullit ñooña war a nangu autorité diine bi di joxe impôt ñu leen di atte ci atte diine ji suñ ko bëggee suñ ko bëggul ñu atte leen seen diine loolu situation bu amatul parce que jullit yi amatuñ état donc li fi des rek mooy par hasard ay jullit yu daje ak ay ñu dul jullit ci benn ëtt bu dee fu mel ni Sénégal mooy ëtt boo xam ne ñun ñoo fa ëpp waaye nag ñu won leen yaatu dënn goo xam dem na ba tax ñoom sax ñu defee ne ëppatuñ ëppatuñ leen waaw ah. parce que fii euh, minorité bi dul jullit euh, euh, c'est-à-dire yitte jim am ak dara jim am ci dëkk bi bootu sax ñi dul jullit ñiy jullit amuñ ko bon loolu nag xëy na mën naa wax ne waru waru waru doon àgg ba foofu quand waru mën nañoo dëkk ñoom ci jàmm ñu jël seen i àq ñu jël waaye nag ëpp gi ñu fi ëpp feeñ ci jëflante gi parce que loolu mooy démocratie waaw ah. loolu la président jaar tudde woon laïcité positive ñu ne ko lan mooy laïcité positive mu ne laïcité boo xam ne day feeñalaale ñi ëpp luñ gëm ci dëkk bi ci ay loo am loolu waroon na man a nekk misaal bi ma ciy joxe rek mooy mbokk yi ñu fi daqe woon fii ci pharmacie bi c'est parce que dañuy dem juma te daawuñu jóg sax dem juma yàlla dafa def juma ji dañ doon jullee ñu koy liggéeyaat léegi nit ñi di jullee ci mbedd mi mbedd bi sàpp yi ñëw ba ci pharmacie bi ñuy profitoo di xaar bañ kàbbar yu gaaw wàcc taxaw ci sàpp yi bu ñu sëlmalee ñu yégaat kilifa gi yëg ko ne leen nañ bàyyi julli gi wala mu dàq la ñu gis seen bopp ne ñoom duñ bàyyi julli yi ndax leen noonu lañ leen dàq sans droit parce que dañuy doon julli juma pourquoi parce que code du travail prévoirul julli juma code du travail li mu mooy contrat bi nga signé ban heure ñaata fan ci semaine yu ngay liggéey semaine jours yi ngay liggéey ban heure ba ban heure ngay liggéey ma su fekkoon ne dañoo dañoo nekk nit ñu normal nit ñu bàyyi xel ñun ñooy ñan mënoon nañoo tëral ay loi yoo xam ne jullit bi dina am satisfaction employé bi am satisfaction ndax ñooñu ku leen waxoon na leen léegi li gën a simple mooy fu mu di jotee ci wàcc mais da ngeen di xëy si samedi danañ ko nangu ñooñu ku leen ko waxoon ñu nangu ko te pharmacie bi day liggéey samedi ak kon wax dëgg yàlla mënoon na moom si boppam sax mënoon na jël initiative bu bëggoon jàmm waaye nag dañoo mujj bew dañuy cest seen seen minorité gi dañ dañoo jekku jekku xam ne dañ jàpp ba def ne lu leen neex teg ñu aussi parce que li koy wone mooy seen feet yi lañuy feetu ñun te xamuñ feet yi feetu lan danaa ko wax damay continuer di ko wax ba ba muy dañ parce que jaaduwul parce jaadu mooy feetu diine soo koy feetu nga xam ne tax surtout feetu diine boo xam ne fa mu cosaanoo sax feeteetuñ bët bu set Sénégal nekk ci feet France di liggéey nga laaj leen ñu ne ñoom feet gi feetu naa nga am la mais français duñ ko duñ ko duñ ko feetu ñun ñu ko ni ko feetu ñun jullit te xamul lu tax <laughs> ay Toussaint ay affaire bi defal defal micro trottoir nga dajee nga laaj leen feet gi feetu la xamuñ ko parce du seen feet lu teewoon feet yooyu bu jotee ñu ne ñi gëm diine yooyu nañ ko feete ku ko gëm liggéey lu loolu loi yi mënoon na ko def législation code du travail mënoon naa régler problème boobu donc loolu li muy tekki kon mooy ñun euh, li ñu dese bëri na trop parce que ñun suñu problème du problème laïcité donc problème ñàkk fulla la ak ñàkk xam li xew parce que problème yu bari mën nañ ko régler laïcité bi nekk fi jotewul dara ak laïcité c'est pas laïcité du du feetu feetu chrétien yi du la mooy laïcité normalement bu fekkee wax dëgg yàlla li wax dëgg la nga xam ne laïcité mooy yàlla sa yoon nekku ci ni ñuy dundee fii bàyyi ñu régler ko suñu bopp loolu mooy firi bi gën a ci firi laïcité mooy yàlla sa yoon nekkul ci ni ñuy dundee fii léegi demal xaar yu ci jàkk yi parce que à chaque fois boo intervenir da nga yàq suñu liggéey léegi dama toog xaar jàkk ci loolu mooy laïcité alors d'accord waaye léegi nit ñi nekk ci pénc bi waruñ ko waruñoo waruñ koo tërale ci façon boo xam ne ñenn ñi day te leen di may ñu jubóog seen jàkk ñenn ñi du leen may duñ jubóog seen jàkk loolu du problème laïcité problème nit la nit ku xamul mooy kan xamul lan la am ak lan la ñàkk ñun wax dëgg yàlla eh, diine ji jàngaluñu ko wax dëgg yàlla sénégalais ñu bëgg diine ji mais kenn jàngalu leen parce que kenn xamalu leen ay détails rek lañ leen di wax wax naa ko gouverneur Dakar xaw ma moo fi nekk ba léegam de ci taawu Covid bi bi ñu nekkee ci problème tëj jàkke yeeg ubbi ko ñun en tant que ligue des imams et prédicateurs du Sénégal ñu jël suñu suñu ñu ñu ñu dajale suñu borom xam-xam ñu gëstu problème bi def fatwa wax ñu nan la war a def mais yàlla dogal am ku ñu ñu am ku wax ne dañ euh, gouverneur Dakar dafa bëgg a daje ak imam yi. ak association euh, bale cadre islamique ñu yàlla def ñu wooñu ci bi ma ñëwee dama ne gouverneur les sénégalais sont fatigués yàlla dafa ci alxuraan aaye bu ama am solo wala ay ya aaye yëpp am solo mais bii dañ ko war a nafaraan yàlla def ne daraba laahu mathalan rajulan fii shuraka mutashakisu wa rajulan salaman li rajulin mu ne hal yastawiyaani mathalan yàlla ne kaay ma nettali leen ñaat ñaari xeeti surga ngeen wax ma ku ci jàmm sur surga bi nga xam ne dafa bari ay patron waaye patron yu jubuñ jubowuñ fii suraka mu te shakiso jubuñ jubóowuñ ndax patron yu jub sax man nañoo waxtaan ba ba may la jàpp mais dañoo jubut ba pare jubóowuñ bu la kii nee toogal kii ne la taxawal te ñoom ñëpp am ci autorité bu la kii nee reyal kii ne la jooyal yàlla ne kooku moo ëpp jàmm wala surga bi nga xam ne benn patron la am te mu jub du ko sant lu mënut te lu mu ko sant jàppale ko ci yàlla ne ñaari ñaan kan ci ëpp jàmm ñun ñëpp mën nañoo tontu ki ëpp jàmm mooy ki am benn patron bu jub kooku ëpp jàmm waaye même ki am patron yu ëpp benn waaye ñu jub walla buñ juboo woon sax bu tane ma ne nag foofu la sénégalais bi doon sénégalais bi dafa am devoiru déglu législation déglu déglu institut bi euh, administration état bi sénégalais bi en tant que citoyen dafa am devoiru déglu administration bi ndax citoyen la te administration moo ko war a digal mu def moo ko war a tere mu bàyyi sénégalais bi dafa am devoiru déglu yonent yàlla Muhammad ndax moo wax ne jullit la te jullit yi dañ leen wax ne yonent bi ngeen di déglu waaw su fekkee kooku mooy sénégalais ba pare administration bi faalewul ne sénégalais bii may jógala yilifkat am na keneen ku mu war a déglu ku dul man te ñun ñaar ñépp la war a déggal kon suñu waxtaanut est-ce que du sonn ma ne day sonn ma ko nag léegi kon li muy tekki mooy waxtaan ak ñi fi tegal toogal yant bi sallallahu alayhi wa sallam mooy imaam yi ak sëriñ daara yi ñu xool nu mu gën a woyefe ci ci Sénégalais bi parce que comme dafa war a déggal ñëpp bu ñu juumee ci li ñu leen di digal ñu sonn loolu moo dal Sénégal yi fii ne Sénégal yi kenn xamul lan lañ kenn xamul lan lañ est-ce que ay jullit lañ wala ay citoyen ñun kenn xamul lan lañ parce que boo nee julli lañ ñu ne loo tax yéen di wax nangam te defuloo ko nga ne parce que su si laïc boo nee citoyen la ñu ne lu tax administration bi digal la nga bañ nga ne parce que jullit yi problème donc loolu yëpp li muy jur li muy tekki mooy réew mi foog ñu waxtaane waat ko heure bi passé na bu yàgg waaye loolu mënu ma ci woon ñàkkee li may wax nii laytaay la pour ñun ñëpp ñu xalaat parce que dëkk bi il faut ñu waxtaanal. mënuñoo continuer comme ça mënuñu continuer comme ça te ñu nu neen lañ te bu buñ ko waxtaanee woon am solution problème bi ñu am mooy lu tax ñu am indépendance te bañ amee indépendance ba pare ba tey su mosuñoo toog waxtaanee waxtaanu ko am indépendance kenn mosu ko def misaal dama ci wax misaal dégg naa xale yi di ko répété waat sax ci seen intervention yi mooy éducation nationale programme éducation nationale bi tubaab yi ñoo ko fi indi lan lañ ci doon ñu nekk ay jaam yoo xam ne jaamu tubaab yoo xam ne dañuy gëm ne nekk jaamu tubaab yi moo gën ci ñun loolu la programme bi yëpp loolu li la ko tàmbalee primaire ba université abu abitution bi mooy nga sénégalais bi nangu nekk jaamu tubaab yi moo ko ko gën a arrangé waaw tubaab bi bëgg nga gëm ne nekk jaamam moo gën ci yow yow nga weddi loolu nga ne nooman man du bëggumaa nekk sa jàmm parce que avant nga fi ñëw gor laa damaa bëgg a nekkaat gor léegi toi bi ne boo daax man maa ngi ñibbi mu ñibbi nga jël programme bi mu la doon jàngal pour nga nekk jaam nga jàng ko pour nekk gor c'est pas possible mënul nekk loolu jarul dem école jarul loolu koo woo laaj ko te moom xel mi ngi mel ni ku ji kaani ci suuf si nangu kaani roose ko ndox mu baax muy màgg di màgg ba tóortóor jot mu tóortóor meññi des mu bëgg a meññi kaani nga ne ko non damaa jumoon meññal bopp <laughs> salaamaaleykum